mu doon li nga xam ne ñu ngi koy rafetlu bu baax et deuxième point bi moy ñu ngi di ñaawlu li nga xam ne organiser nañ ko dans le département muy audience boobu nga xam ne dañ ko accordé le département te dugaluñ ci xale yi loolu ñu ngi koy ñaawlu ginnaaw loolu ñoo ngi taxaw pare pour takku ànd ak président de la république Si limu wax moy and nek ben bokku ndey bokku baay ba nga xamné liñu élection législative dañ koy am waye parti bi nekk ben la coalition ben Bokk bi nga taxaw ci parrainage ba nga Rabbi... le maximum de possible ci département mais également dinañ ba nga élection législative yi président dina majorité ci département bi wala sax assemblée ba waaye fii ñëw rek pare nañ ba jox ko quatre-vingt-quinze pour cent boo xam ne ñun la jeunesse dinañ taxaw dugg ci askan bi wax ak ñoom ñu inscrire ji moment bii nga xam ne tey bindu dafa jot pare nañ pour ànd ak ñoom ñu bindu ji pare nañ pour sensibiliser leen ñu dem bindu ji ndax am na ñoo xam ne tey dañuy mësu ñoo voté kon ñooñu war nañ leen a wax ñu changer seen lieu de vote yi war nañ leen a wax ñu bindu ji waaye war nañ leen a wax ne nan nous voter voté ñu xam ko voté. nous ñi dinañ taxaw di voté. président de la république di ko xamal ndaw ñoro nous nañ ndaw Nous di nek ci kanam combat bu nga élection Nous avons mu ngi biir département ndaw ci poste de responsabilité dafa voté. soko avons ci poste par exemple sa de mission lañ ci am muy ser ser coordinateur Abdou Wahab mom lañu mëna tudd en tant que jeunesse ci département bi bo xamné mom rek mo fi am ndom ma tànk boo président moko jox muy chargé de mission mais amuñu chef de cabinet amuñu chargé de mission amuñu conseil technique amuñu benn poste te ñu koy ñaan mu gestu ndaw ñoro parce que ndaw ñoro sonn lañ té mësuñu des ginnaaw ci ay activités yi nga xamné ubé politique bi nga xamné ne mu ngi koy mën a fii ci département bi au niveau national également gis réalisation yi nga xam ne mu ngi koy def mu doon loo xam ne doy na wax ndax opposition bi ñu ngi wax guddi ak bëccëg waaye yaakaar naa li président di def ku ci doon wax doo tay ndax def na loo xam ne ci réew mi doy na ñu jàpp ko doy na sax ñu defal ko mandat illimité parce que daf ko yelloo président de la république mu ngi liggéey fii si Sénégal te loolu lañ soxla ba tax na ñun ndawu nañ pour ànd ak moom jàppoo nekk benn ànd nekk benn bokk ndey bokk baay di ko fàttalil ne dañu am ay responsable jeune comme jeune estudiantine qui nga xam ne Pape Samba Gaye mu nekk un jeune très dynamique très engagé ak Wahab Dieye moo dirigé la cause départementale mu bàyyil ñu xel loolu également suñu responsable yi nga xam ne ñu département bi

mu yokk jàppale leader yooyu ba nga xam ne li ñuy def dañ ko gën a man gannaaw loolu ñu ngi leen di remercier di remercier képp koo xam ne tey yaa ngi ñëw fii ci déclaration de presse bii nga xam ne tey la jeunesse ñoo ko organiser fii ci département Nioro jërë ngeen jëf di ko wax tey Nioro gi ñu nekk nii rek boo fi ñëwoon ci gannaaw ay xur la woon xur la woon ba nga xam ne bu ndox mi yu yàlla di daan taw di daan am ay mordom bu yolnde bi daan ñëw da daan rey tey boo duggee Nioro yépp def nañ ko ay canal également fépp foo dem tey tali la si biir Nioro lépp goudron nañ ko boo génnee daan le de Nioro euh, lu mel ni exemple de Porokhane euh, Porokhane rek nga daan dugg gis yoon bu jógee Nioro dugg Porokhane tey àll Porokhane yépp boo duggee tey am na ay courant am na ay yoon nga dem Taïba Niassène également nga dem euh, Ngayène Sabakh tey lu mel ni poste de santé bi nga xam ne waa Puma def nañ ko fi gis nañ ko nga dem kër Ale sàmba gis nañ ko fi li lim fi def dafa bari si ndimbalu bourse sociale yi ñooroo xamuñu woon dem taxaw si ay euh, structure bancaire mais tey boo ñëwee bu fayeeku jotee da ngay xam ne askan bi li leen président def yëg nañ ko te xam nañ ko kon président li mu def vraiment ñun ndaw ñi gis nañ ko fii si département bi waaye gis nañ ko au niveau national li ñuy ñaan rek mooy mu yokk jàppale ndaw ñi si xëy bi waaye jàppale ndaw ñi ba nga xam ne dinañ seen taxawaay dina gën a taxaw fii si département bi jërëjëf Ibrahima Dieye euh, responsable politique APR Porokhane